ndax présidentielle yàgg na ma fekk Touba mais présidentielle boo xamante ni Sénégalais yi amee na ni détermination amee ni yëg-yëgu voté loolu mosuma koo gis kon nag damay ñaan yàlla nii mu tàmbalee nii ci bisimilah rahmaani rahim mu jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ba Sénégalais bu am droit def sa droit citoyenneté nga def ko ci jàmm. xam nga ñun suñu ñoo wote lu dul jàmm ndax fa politique it fañ juddoo permettre ñuy wote leneen lu dul ay kon jàpp naa ne jàmm moom sëñ Touba bi nekkoon ndax am na lu ko gën dañu ma lu ko dañu gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fañ jëm yow la kaay sa boobu amul jàmm du baax ci yow kon jàmm képp ku koy woote yow yaa ngi woote li gën. violence moom boogul fenn météo wala gën a bonati te ku ko fi defit conséquence yëpp ci sa kaw lay këpp Sénégal daal nii vote yi commencé démarré nii ndax ñun xam nañ Touba dëkk bu mag la lépp mënut a tàmbali rek jaar yoon ndax 610 bureau defat loolu kenn mënu ko expliquer dina am bureau yoo xamante ne bu ñu tàmbali léeg-léeg président bu du ñëw léeg-léeg du ñëw loolu comprendre nañ ko mais li wóor bu wóor mooy bu ñu demee war naa jaar yoon te it loolu la ñuy remarqué woon pour le